booy yi sax xam nga bi si des mu ngi une semaine booy loolu moom xam nga ne mooy dara am booy su nekkul loolu sax maa bëggoon ñu teg benn dig booy ban dig noonu yow moom say dossier daa xaw booy xam nga ne sànq na bàyyi maa bëggoon ñu dem di màjjaali ndax ñu am loolu dig la de booy wax nga dëgg sax. man instant bii sama poche bi tous defar nañ si waaw désperation booy xalaat ñooy xalaat koy jëlee baay xalaat yi neex na ma de waaw booy temps moo ngi dem de kon nañ dem léegi commencé tey di màggal gaay ndax ñu am place booy yaas des de toogaay amatul de booy sànq léegi ñu ngi dox amagul dara yow booy li mu war maa gaaw découragé parce que am na waa nekk ne lan dem maa jàpp booy bàyyi ma dem maa jàpp maa dàq maa jàpp yow booy bu ma sonal de maa xamoon yow gaaf nga bàyyi ma dem laaj ko rek booy koy wax gaaf wax ci ma sàppe damay ñibbi léegi booy dama lay ruube rek yow xanaa xool koo suba rek une deux trois quatre nga nga mer bàyyi ma dem laaj ko rek salaamaaleykum jëriñ maa ngi ziar maa ngi ziar bu baax dama nekkoon si wàccaal magal bi waaw. waaw kon loolu moo faal keneen magal wala. waaw faal dañuy magal dañoo bëggoon ñu dem si safar bi waaw. waaw man daa mel yoroon naa fi peete waaw xaaral ma xool ba xam. jërëjëf faal yaa ngi ko joxe ay attaques waaw suñu jëlee fay. अबोई खराब jox na la 500 la jox waaw añ dem 500 la añ dem bàyyi ba xam danañ amaat dara. salaamaaleykum père dañu ma jàlle ñoo bëggoon dem Touba waaw sëñ Béré Faye de waaw. non monsieur je ne sors pas de maa def genre paa yi yéen ñu tous ak leeram bu sori bi non booy kon ma instant yor ma xaalis yor ma xaalis doo dem ma nekk naa damay jëm xaalis dugal fii sa leel bi mën na baat bu tax diwlin booy yaa ngi gis bàyyi xaal bële bàyyi xaal bële moom bàyyi xaal man bàyyi xaal man rek moom maa jàpp waaw booy amal xel bàyyi man xel sànq yaa ma jaale woon Paal Paal ma ma jaale ko rek keneen ñëwee nga dem sama Paal ma ma jaale ko rek. booy bàyyi ma dem rek bàyyi waaye xam naa fi ma leen jaar ay biir diim lan may jox su ma leen fa jaaree biir diim Paal ma dem rek booy dama bëgg ay xëccoo mais dama gërëm. salaamaaleykum Fall maa ngi ziar. waa sëñ bi delloo ziar. est-ce que mën naa toog. waaw kaa topp. sëñ bi ñoo ngi ziar ñu a laaj mbokk taalibe yi du ñuy participer safar. ah ok wax nga dëgg mais loolu amul benn yaa ngi waaj màggal bi. yow de waaw. ma bi seen Karim Mbacke man su ma waaj a màggal kan ma koy jugal nga dem sax soo ko bëgg a def bàyyi faal bu ma nga laaj ba xam yaa ngi waaj màggal bi man ma waaju màggal waaj. kay yaa ko fekkee ab bàyyi faal toog laaj ba xam moo ngi waaj wala waaju xam nga ne si yoroon kuur koy dóor te doo fekkee màggal bi.